non ah, mais dañuy sant suñu borom rek ñu ngi tàmbali politique 2007 dox ci parti socialiste ba ñu dàq ñu en 2017 waaw ah, occupé na woon nañ fa nag ay responsabilités mais sant yàlla bi ñu noppee loolu dem nañu taxaw Sénégal ànd ak Khalifa Sall mais terewul woon chaque fois ñu ngi doon liggéey pour ut loo xamante ne moo ñu mën a jariñ sur le plan politique waaw ah, maanaam ut taxawaay boo xam ne boo demee élection doo am gàcce dem ci yàlla Ousmane Tanor Dieng daan wax ne. Euh, bu ku nekk gañee sa gox parti bi day gañe fépp te li ci am solo aujourd'hui mooy wax ndaw ñi ne dara jomb leen donc ñu fexe it ñoom ba nekk ci seen wareef maanaam liggéeyal seen gox am nag ambition am yéene am mbébét am bëgg-bëgg ba yàlla fekk ci leen si may leen ci ndam Euh, ma dégg la rek nga ne 2017 nga démarré li nga xamante ne mooy sa vie politique 2007 plutôt nga baal ma 2007 nga commencé nga nekkoon également ci parti bi nga xamante ne mooy socialiste ba bés xëy euh, ñu dàq leen fa problème bi naka la demee woon. waaw non dañu àndatul woon rek ak parti bi ci doxalinam donc ci loolu la ñu nekkoon doon ko xeex législative 2017 ñu ànd ak Manko taxaw Sénégal donc bañ ko weesoon nag après si lañ ñu dàq parti bi parce que dañ ne mënoo nekk ci parti bi. di bokk ak beneen coalition. lan moo nekkoon seen idée à l'époque. non débat démocratique am ci biir parti bi ñu bañ a jël def pensée unique maanaam benn nit mooy wax mooy décider ci li nga xamante ne mooy avenir u parti bi. Mm-hmm. ok leer na ba tey jii ñu gis la également fii euh, ñu euh, waa yeewi askan bi investir la naka nga def ba ba dugg ci coalition. waaw xam nga taxaw Sénégal la ñu bokk taxaw Sénégal bokk ci yeewi askan wi donc bi ñuy def candidature yi dañ jël kenn ku nekk benn candidat. ñuy waxtaan ba juboo ba am consensus ànd ci kilifa sama tur génn ñu désigné ma comme candidat de la coalition Yewwi Askan Wi fii ci Yoff. buñ la ko désigné euh, naka nga réagir aussi. xam ne mission bi rey na te war nañ ko am war nañ ko gagné donc nous nous sommes donné les moyens politiques de gagner par la grâce de Dieu nous avons d'accord baax na léegi euh, man dama laaj rek naka nga def euh, naka nga dundee campagne bi ba lan yan méthode nga xamante ne moom nga adopté naka nga battre campagne. waaw pas de visite de proximité seeti kilifa yi seeti ndaw ñi seeti mag ñi seeti grands acteurs yi seeti groupement de femmes de jeunes yi donc loolu lañ def dox ak wax ak proposer suñu programme macha allah. alors euh, nga battre campagne ñu gis ne rek ñëpp dañ la bëgg ba ci koñ bi fii démb bu ñuy dugg ñëpp di yuuxu sa photo rek lañ doon affiché maa ngi doon naan euh, tey ji yoof boo mooy moytuwul Abdoulaye Diouf sax dina ko jël ndax euh, lépp bu ñuy peut-être bu ñuy joxe résultat wala dañuy lii dañuy basé wu ci li nga xamante ne mooy campagne bi mais terewut nit yi ko wax danaan la xale bi kii nga xamante ne mooy Issa Laye Samb moom moo koy jël maanaam dañu amoon carrément confiance ci yow lan moo nekk sa projet pour ñoom. waaw Yoff moom proposé leen projet bu ñëwee Yoff bi ñu bokk def ko sur quatre axes bi ci njëkk mooy la gouvernance ouverte day jubal ci ñu ànd yorandoo dëkk bi parce que baatu askan wi la ñuy laajte te boo laajtee baatu askan wi war nga dellu ci ñoom laaj leen naka lañ ko bëggee ak nu ñu ko bëggee ak lan la ñu bëgg nga doxale ko ñoom ñaareelu pañ bi mooy fexe ni ñu fexe ba doomu aadama yi mën jël seen bopp en charge mooy du développement humain ñu jàll ci développement urbain ñuy defee ba suñu dëkk taaru ñu tabax lépp lu ñu soxla ci wàllu infrastructure yu méngoog jamono ñu am ko beneen bi nag mooy wàllu li ñu suñuy maam yi bàyyil cosaan ak aada ak wàllu diine voilà donc axe yooyu lañ leen proposé muy quatre axes moo composé la programme Yoff bi ñu bokk moo gis nañu waa Yoff aussi vraiment accepté nañ ko waaw macha allah. démb tamit ci bu ñuy dem voté ji ñu gis la nga ànd ak ñi nga xamante ne benn délégation la sa yaay sa papa. bi nga doon voté ban sentiment nga nga amoon bi nga yeggee sa bureau de vote. waaw sant yàlla boo ànd ak sa wéjur booy dund di sàkku cër ba ànd kook sa wéjur di ko uti da ngay am mbégte rek waaw di ko sant yàlla bu baax bi ñu bàyyi suñu wéjur ba jamono jiñ toll nii di leen ñaanal gudd fan ak weer. Mhm. Euh, Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne moom mooy maire sortant bi euh, gis neen mu def publication nangu ne carrément ne euh, Yoff doonatul Yoffam et que yow yaa nekk candidat candidat bi nga xamante ne yaa ko succédé à poste bi nga xamante ne def na ko ci réseaux sociaux yi woo na la par appel félicité. manqué naa nag appel yu bëri damay wax dëgg rek te yàlla tax dem ñu ngi woon caravane xëyee ñu ngi doon jéem a noppalu am na appel yu ñu jot mais nag jotaguñu bosam mais loolu du problème sama diggante ak moom Ablaye doom la ci man ci wàllu mbokk gi mag la kilifa la ci man donc loolu moom amuñ ci jafe-jafe xamante nañu te xam nañ ne li ci ëpp solo rek mooy nu ñuy àndee ëllëg pour gën a taxawal Yoff incha allah démb ci ban waxtu nga yëg ne yow yow yaa gagné élection yi. 22 heures et quelque la mu wóor ne maay maire Yoff <laughs> ma koy sant yàlla bu baax. <laughs> dañ la woo téléphone wax la ko wala da nga toogoon di seetaan télé di déglu information. non en fait man damay politique donc yàgg naa dem élection c'est ma huitième élection. donc bi résultat yi di jàll am na centre yoo xam ne ak bureau yoo xamante ne bu ñu ko gisee rek résultat yi mu joxe xam nañ fu ñu jëm donc ba ñu amee résultat yooyu ba jot ko. vraiment sëriñ xam ne daal ne alhamdulilah donc terewul ñi ma àndal waat ma confirmé ne ma ñun ñoo gagné Yoff waaw. naka nga ko dundee parce que man dama la woo ba sonn ñu bëri ñi ma àndaloon di la woo duñ la jot comme ni nga ko waxee raté ngay appel yu manqué instant boobu lan nga doon def ci kër gi fii nga nekkoon wala a nga génn. woon may woon ci kër gi di saafonteeg mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi bu ñu noppee génn leen def une grande caravane am nga donc euh, tey si. démb ci guddi gi defoon nga caravane. waaw def nañ caravane démb ñu ngi pare presque ay 3 heures du matin. Mhm. léegi naka nga gisee réaction ñi nga xamante ne mooy internet yi nekk ci Facebook ma gis aussi ñu posté sa benn photo ñii di naan dafa rafet di lii daal naka nga ko gisee ak soxna si maa gis na commentaire rek. bon personnellement gisaguma ko mais bon xam naa ne nag jigéen joo gis day fiir waaw mais alhamdulilah sant yàlla waaw sant yàlla sans problème vraiment incha allah. alors euh, danga may baal rek nga revenir at ma tuuti rek ci sa parti parti politique parce que nit yi soxla neen la xam dañ la apprécier également yaa ngi naan du benn yoon nga dem euh, nekk def li nga xamante ne moom ay élection waa nga baal ma rek revenir waxtaan ak élection yi moom 2007. lan moo la également animé ba nga dugg ci. non politique moom passion la ci man bi depuis ma nekk xale te ñu amaloon solo rek mooy vraiment bokk ci ñi nga xamante ne taxaw nañu pour bokk ci ñi defar dëkk bi donc yàlla jàppal nañu ci engagement boobu te alhamdulilah. vraiment depuis lors ñu ngi siy gis euh, ndimbalu suñu borom ñu ngi jàppale yoof ñu ngi taxawu yoof te alxamdulillah vraiment sant yàlla bu baax a baax mais euh, peut-être dinañ ci revenir aat euh, dinañ ci revenirat après nga baal ma aussi rappeler ma projet yi nga xamante ne tey jii Yoff manqué na yoof lan la manqué ak euh, nan nga fas yéene tàmbali sa liggéey yow. boo demee tey ci wàllu biir dëkk bi war nañu mën jàppale askan wi jël seen bopp en charge jigéen yi liggéey seen bopp ñu dooleel leen kattanal leen. war nañu mool yi ubbi leen ay banqaas lu ci mel ni chambre froide dañu mën a denc seen jën war nañ yeesal dëkk bi pavé ko fexe lu ñu jàppale élèves yi ci bërëbu jàngukaay yi ñu gën a doon ay bërëb yu mucc ay pour élèves yi mën fa sentir seen bopp. boo demee Ouest Foire dara amu fa du tali du marché du centre de santé wala poste de santé du dara donc tey le chantier de Yoff est immense surtout aussi xool nu ñuy fexe ba wàññi chômage ndaw yi ci dëkk bi donc loolu moom lu ñuy lu ñuy amal solo la. waa chantier yi bari na mais xam naa ne bu ñu jàllee ci lii moom man ngeen ñëw ñu toog a dal ñu gën leen ko càmbaral gën leen projet bi bi ñuy tudd Yoff bi ñu bokk hmm. Euh, ñu euh, remarqué aussi avant ñu terminer rek ne violence bi dafa bëri te lu luñ ci gën a noté jeunes yi lañ koy gisee ba ci campagne yi ñu gis ko ban message nga leen di euh, lancé. ñu ànd ak dal ak yar dal ak yar lu la mayul dara du ko may donc di wax ndaw ñi ne dañu assumer seen responsabilité taxaw xeex li nga xamante ne mooy seen cër ci réew mi te xeex sa cër nag ajawul sax tuur deret donc macha allah ñu ngi leen di appeler au calme et la sérénité. lan ngay wax population bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk population Yoff. di leen sant di leen gërëm sagal ngeen ma taxaw ngeen ma mais doole ma gën a gore incha allah maa ngi ñëw nag bu neexee borom bi subhanahu wa taala